ànd ak délégation gouvernementale ànd ak Mohamed Dionne président de la République yónni ñu fii ci Thiénaba euh, ñoo fekk fi sunu ay mbokk di la maire Talla Diagne fekk fi aussi euh, Serigne Idriss mi euh, ñoom Bàcci Siis ñoom coon pour jaale waa Thiénaba ci làq bi nga xam ne sunu waajur sunu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Diagne Seck nekkoon sunu waajur nekkoon sunu conseiller te saaj fi ñu ñëwoon mu ñu doon dalal wax dëgg yàlla ci dalal mucc ayib te ñaan yàlla teere ko yërmande yokk leeram eh, tas ñu ci barkeem di ziar eh, xalif bees bi sëriñ Abdourahim Seck di ñaan yàlla eh, wëral ay cëram yàggal ko ci kanamu njaboot ji di jaale waa Sénégal sëriñ Pape Malick Sy mi nga xam ne wàññeeku na fan yi di jaale groupement islamique bi yëpp di ñaan yàlla lii gëj fi mbas mi nga xam ne it mu nekk ci réew mi yàlla na ko fi yàlla teggi teggi ci anam boo xam ne daal nit ñi nañ mucc